dama nekk bi CNG toog ànd ak sama équipe bi ah bëgg a waxtaan ak paa yëpp ci làmb waaye waxtaanuñu li nga xam ne mooy diggante Boy Niang ak Tapha Tine mon père maa ngi lay nuyu. siyaar naa la maa ngi lay fay bu baax a baax di nuyu Sénégal gépp di nuyu ñi seetaan site bi yëpp soxna si baaw. dina nuyu baax a baax buñ ne ba Ama Baldé ne Pikine waaye balaa ñu ñëw ci loolu comme bi dox diggante Siteu ak Papa Sow bi mu noonu nag ndax nga ko gisee. non combat la boo xam ne bii vraiment bi mu yàqoo metti na metti na ñëpp ah. métti na ñëpp parce que njumte yi ci am xëy na bari na waaye amoon na ko ko mënoon réparer quoi parce que li ko mënoon réparer mooy euh, bu kenn xëccu ne damay jàppante wala damay xeex wala damay faja sa bopp mer faja sa bopp mer xewi na bu yàgg réew moo xam ne bi loi fi nekk yaa ngi may dégg ñaari mbër yëpp kenn ku ne ci am nga loo xam ne lii mu ngi sa kanam lu la metti mën ngaa jaar ci ñoom ñu fajal la ko te ñi koy faj ci làmb ñu ngi toog ci làmb ji muy CNG de lutte bala ngaa dem tribunal wala ngay def daal da ngay jaar fi CNG ñu ne la nangam ak nangam CNG ngi ci biir làmb ji am nga ménager boo nee yow dama bëgg a jaar fi wala dama bëgg a def lii mbëgg a indi coow gisal sa ménager ñaari ménager yi waxtaan ñu ànd ak service d'ordre bi bu bëgg la nga def li ngay def coow du am mais bu fekkee ne da ngaa bëgg a sa bopp fajee sa bopp doxal na leen vraiment gis te gis naa ne ni Papa Sow def noonu noonu loolu bu amatoon suba suba ci làmb ji mën naa toj làmb ma nga xam ne yooyu di am daal wax dëgg yàlla parce que wax dëgg yàlla ñi nga xam ne mu ñu doon Siteu ñu ngi woon ci côté bi nii à côté bougé ñu mënoon nañoo gis ne gaa yaa ngi attaqué seen i géwél ñu jóge fa ñoom attaqué ji géwél yi Papa Sow bu boobaa leneen la mënoo di régler fi di régler lii mën nañu indi fi leen mën na bu gan sax mën na fay am mais ñoom en vrai dire toog nañu jàpp seen njàmbur léegi nag bu fekkee ne ñëw danga nga ñëw dañ naa sànni xeer wala dañ naa sànni ndënd wala ne gaañ la vraiment action bi tax ñu gaañee ci ndënd mi war nañu xool lan la parce que bu fekkee ni Papa ba muy dem dafa mer yore arme te mbër mu takki ay gàllaajam xabtalu ñëw yore arme wut si la amoo kattan amoo doole géwél yi mu amuñu doole la pro géwél sax kenn du ko rey ci xare waxatuma laa nga di ko bëgg a gaañ ba nga xam ne loolu daal man su ma sañoon euh, Papa Sow nit xale bu yaru la man xam naa ko bu baax xale bu yaru la euh, am comportement boobu ñuy comporté am jur boobu ci euh, làmb ji fii man jàpp mag. mu nekkoon wala mu nekkoon ci écurie bu mag boo xam ne bii dañuy kii parce que baa mi nga xam ne bii moo ko yore xam naa ko baax baa xam naa ko baax mën na lay jàppale ci bari mais enceinte lamb sax rarement la muy taxaw kon ci lu wér te wóor mooy man jàpp naa ne moom nit ku mën a defar moom baax su fi nekkoon jàpp naa ne toog fa wala kii du fa am vraiment maa ngi koy nuyu bu baax a baax moom baax waaye daal gis naa ne daal li mën a am kër ci làmb jëpp papa so mënoon naa bañ a bokk ci xeex bi loolu ah mbër mbër sax du xeex waaye ki nga ne mooy Papa dañ koy ñaan rek nay baal di jéggale parce que baal ci grandeur la bokk moom pen ñu jëm ci journée bu mag diggante Tapha ak Boy Niang da nga gisee journée boobu 19 décembre. waaw journée la boo xam ne bii euh, euh, xëy na euh, c'est la deuxième fois wala c'est la troisième fois journée bu toll noonu di am fii ndax gis nga làmb ji dimanche gis nga ni mu feesee waaye jàpp naa ne làmb ji di ñëw dimanche itam mooy gën a fees te xale yi bari na ci ñoo xam ne kenn ku ne ci. la ëmba mat na sëkk ci mbooloo mu lay ànd ak yow gunge la bu dee boo ñaala waa Pikine ñoo ànd ak moom waa Bawol ànd moom Tapha Tine waa Bawol ànd moom ànd ak waa Ndakaaru Medina bi mu dëkk jàpp naa ne bu ñu sënkee ñëw ci làmb ji takk ñëw jàpp naa ne bu ñu bëggee bëre ci seen biir rek te yàqu-yàqu yi war na leen a yee dimanche passé bu ñu am lenn lu ñu xëccoo wala dara nañu def en ñëw toog kenn ku ne ci boo war a dugg dugg bu ñu la tuur tuusal nga tuusal la jàpp naa ne sax organisation bi ñuy def nii ba loolu am ba histoire bi am xëy na am na tuur erreur waaye erreur bi itam xam nga dafa am fii place dafa am un ak B A ak B A ak B boobu dafa am tuuti benn changement de kii ci am ci diggante géwéli kee nekk A ak géwéli kee nekk B loolu moo am ba nga xam ne ñaari mbër yi itam nañu sóoraale loolu te jàpp na ñoom ñëpp ñoo bokk ndey bokk ba boo bàyyi Tapha Tine nag mbër la moo xam ne bi xëy na bariwul ba xale yi bëre moom ñu nangu bëre moom boo Niang day mbër moo xam ne bi moom itam dafa bokk ci xale yi nga xam ne waa Pikine dañu ko yaakaar te bu ci bés baa dañ gis ne ni nga li ma lay wax da nga ko gis day ñëw ànd ak waa di ñaan suñu borom ndax man itam bu ma sañoon moom laay faral nag su ma sañoon moom mooy daan waaw gën a jege gën a yay dañuy ñaan yàlla yàlla may ko ndam bu bu bu bu sedd guy Euh, sénégalais yi ñëw itam ñoom ñëpp Séné waa Pikine waa Ndakaaru ku ñëw ni nga dugge daal ci lewte lewte ndax bi ñuy dugg am bu ñuy bu ñuy dugg gis nga du ñu am benn problème waaye su ñu xasee dugg ba ci biir làmb ji di supporter foofu la jàmm ji war a am sax ndax bu njëkk euh, supporter daan na jëlante ay boissons di mayante di kii di dante ay doom di demante ay ngénte mais léegi xale yi dañuy ñëw léegi sax gis nga ku ci ñëw alkaat dañ lay visite di xool ndax am nga arme non du loolu nag du loolu ñaari mbër yi mën nañu dañu mayante xaalis mën nañu bëri tey suba ginnaaw suba ñu bëriwaat la pour mooy am na ci mbër yoo xam ne tey jii bëri nañ ñaar yoon ñett yoon ñeenti yoon ay champion lañ dañoo bëri ci seen biir muy neex ñuy bëri di bëri di bëri di bëri ba tey jii am na ci combat yoo xam ne sax boo amoon dañ naan troisième combat la kon yooyu ñooyu li am noonu nañ koy rafetal ba mu rafet ñu dugg ko soow soow ba mu rafet ñu dugg ko. xam na ni di jóge Bawol ñoo fekk si Boy Niang biir koñam di Pikine loolu ngay wax jeune Pikine yi pour na la ñuy def ba accueillir ñee sans violence jàmm am fépp. non violence moom du ma ko woote fenn la preuve mooy euh, ñun dañuy woo waa Pikine yëpp xamal ne Tapha dañu koy dalal ni ñu koy dalalee nag mooy même bu fekkee indiwul benn personne bu ñëwee nañ ko tàccu bu tuusee nañ ko tàccu yaa ngi may dégg ànd ak moom ci loolu yaa ngi may dégg jotewul ak bërëb bi dara.

yaa may dégg tafaatin bu ñibbi sax mën nañ ko gunga ba mu dugg autoroute ba ju tàcc ko ba mu gën dem te xam ne noonu rek la day rakam lay bëre bu rakam dag bu ko rakam daane nag ndax xale day yàgg daan magam eh Mansour dégg nga moom père moom père na nee moom bu ñu ko daanee nañ ko gunge mu ñibbi kii nga xam ne mooy tafaatin démb wot Iba maar indi état de forme boo xam ne ñëpp dañoo ne macha allah yéen en tant que camp Boy Niang xam nga état état bi état boobu muy indi état mën na nekk état mag tiitalu leen non ñun war a ñoo tiit nag sax ñun ay taalibe lañu ñu war a ñoo tiit et gox bi fi nga dëkk fii yow fi nga fii boo fi dugg sax lee nga ñemee fii dëkk la boo xam ne. Ah, non non fii kay fi la lépp nekk fi la ñun amuñ dara lu ñuy ragal dañu am nag lu ñu jomb ak lu ñu rus waaye ragaluñu dara bu ca bés bàyyi ci kàttanu yàlla moom du du du du du ko xam ne kii xëy na euh, noonu la mel ñun bu ñu sublee ko nga xam ne yaram wu ñu entraîné ak yaram wu entraîné wu du benn. boo ñaar lan nga bëgg mu bëree ko jour ko ah loolu nag xam-xam la parce que damay jege ji mbër mi dama koo jege. kot la waaw ah, non kot la boo xam ne bii du ñu ko joxe noonu day soxla <laughs> wax kenn wax ma eh, daal lay indi bopp la lambi bopp la la mooy mbër mi muy bëreel gis nga ko dégg nañ ne gis nga poids la yore xëy na du def du daal day day day direeku ñëw mbër muy direeku di ñëw nag dafa am noo war a ñëwee mbër mi nga xam ne nga am déplacement. pour waaye bës ak moom dafa am na war a déplacé woo ndax fii stade bi fii suuf su diis gan fi nekk boo diisee gan fu ñu la ñu la fekk fekk normalement war ngaa mun a déplacé di fekk si kooku ku la neex ndax boo diisee gan dugg ci fu diis gan doo déplacé wu de lest moo fiy dugg ak vivacité rapidité bu gaaw loolu daal dañu bëgg ci kàttan. li may tàggatoo di woo waa Pikine yëpp di ñaan nag bu ñu ñëwee sans violence violence sero lépp lu ñu mën a torolee même bu ñu leen di sànni dara wala ñu leen di kii yooyu yëpp ndax xam naa bool bool yi ñu mën a dañuy yaxaw ak dañuy kii rek yi ne ñoom dañuy fëgg seen gémmiñ ba seen xol sedd ñoom ñu mën a supporter mbër lañu waaye loolu du dara yéen leen dalal pikin la bu ñëwee ànd leen tàcc feccandoo mbër muy dugg ngeen tàcc ko Tapha bu indee juróomi nit wala mu ñaar fukki nit tàccu leen ko bu ñu ko daanee ba mu ñibbi tàccu leen ko bu nee ñemewu fi ngeen ko ba ca autoroute ba. ana Ama Balde. non Ama Balde kay ngi ci Ama Balde ngi ci réew mi rek. mu ngi mën nañoo xaar Ama Balde le fii ci arène nationale mu ñëw jàkkaarloo nga ne mooy waaw xam nga loolu loolu moom des na ci ci kile xam nga mën a dem ci télévision boo xam ne saal la signature contrat ñi la ñëwal stade promoteur bi di nit ku baax. de passage maa ngi koy ne Luc Nicolaï bu ñu wooyee joxe abonné yi. ndax ñu fa actuellement ni ñu ngi defar abonnement yi pour ñoom ñu war a daje Modou Lo mu ngi Sénégal ama nekk Europe ne ci yoon jàpp naa ne ñoom xam nañ ne combat bi ñu bëree combat fête la bu rëy rëy am naa yaakaar nañ kenn du ci rate ndax bay passé Modou Lo moo rate woon bii itam yàlla mën naa dogal xëy na du rate xëy na du la tey. bee passé Modou Lo ci ci seen ay wax nee nañ Modou Lo ñëw ba foofu waaye ki nga xam ne nii mu yegg moom xañ na kañ la ko indil léegi naa. ko doon defee Ama bu ànd ak nit moom amoon ñi mu ko doon gis par téléphone am loolu ay pexel rek lay wax la rek loolu wax la rek bëggu naa maa ñëw bëggumaa ñëw ak yooyu wax na nañ diram promoteur bi jàppale ko te xam ne daa yëkkati ay moyens jox leen ko pour ñu bëri leen moyen yoo xam ne yi dañu ko def uniquement pour mu jaay leen combat bi combat bi sax jaay na boppam ba pare mais jàkkaarloo ñaari mbër yi nit ñi dañu koo bëgg di ko seetaan parce que nitu làmb yëpp bëgg loolu ñu xam ne combat bi gaayaa ngi ci biir luy sotti rek suñu borom lay lay neex waaye li nga xam ne moom nga seq promoteur bi àndal ngor ànd ak fulla ak fayda ak jom calculer ne yow li muy def nii mu xëy na mu def forcé wul à cent sax cent sax waaye am na loo xam ne bu la ko jom bu la ko bu la ko bu la fu la may sax ngor mayewu ko ñu yow jàppale ko ci événement yi muy def ñu jàppale ko ci ba mu réussir réussite bu mu cot séentu sans borom may ko ko loolu daal laa am lu may tàggook moom di ñaan sans borom internet bii xam naa ne site la boo xam ne bii àdduna ngi koy seetaan xam naa sax Ama Baldé ngay seetaan site bi ndax moom site bu ma génn moom dana ko seetaan waaye daal maa ngi koy néew de passage di wóor ma ne site bii bu ngeen góorgóorloo tuuti rek ci kàttanu yàlla ci télévision yu mag yi ci ngeen di bokk ñoo leen koy ñaanal di ñaan sa borom ñëpp abonné ci site bii nga xam ne site bi ni mu tudd nga ne Leewtoo TV ngeen abonné ci Leewtoo TV Leewtoo nag xam nga yéen da ngeen di Leewtoo waaye ñun dañuy Leewtoo Leewtoo kat ngeen yu mag. merci beaucoup mon père.